report élection bi léegi luy solution. no report xam nga grand man. Macky Sall man mais est-ce que yërëmoo Macky au fond. est ce que demul xam nga tax ma ma posé la question boobu. Mm-hmm. est-ce que demul ba xam ne affaire yi jeex na mu ne ii ma def ëpp na. Mm-hmm. mu tiit moo tax mu ne xaar mu dugal loi d'amnistie xaar mu reporter mm-hmm. élection yi xanaa mun loolu laa jàpp. waaw loo dal dañ ko nax. dañ ko nax waaw. Macky Sall waa waa parti am léegi Benno Bokk Yaakaar la. ak ñu yor sécurité bi. ñi foogoon ne li ma leen den kaañoo ba la passé a ne leen léegi grenade lacrymogène yi est-ce que mën naa régler datu élection yi. <laughs> blende yi ngeen génne. léegi <laughs> eh, bu ñuy waxtaanee dañ leen. dialogue ba boo bokk leen ci sax si dialogue bi. fee ngeen di toog. bu conseil constitutionnel di décider hey eh, fee ngeen di toog. voilà gis nga ginnaaw est-ce que naxuñu ko. mais Macky ñun Sénégal dañu war a bàyyi affaire de personne. Mm-hmm. Macky Sall dañ ko war a jël xam ne nit kese la. Mm-hmm. def nañ erreur dëgg la mais Sénégal moo ëpp doole Macky Sall moo ëpp doole Sonko sànq mhm. ko grand jiital ko lu ñuy def waaye ko fenn. Mhm. Sonko il faut mu waxtaan waxtaan waxtaanul pour moom de ñëpp xam nañu Sonko boppam taxu koo jóg bu doon loolu kon am na ci États-Unis gars yi yor ay immeuble ne patt toog yor 4-4. wala du kon kenn waxatu ko. wala du wut candidat donc moom il a ses preuves leer na Sonko ku toog wóoluwul Sonko ba léegi nii yow mal xiyaam nga koy wóolooti loolu moo ci dëgg quoi. donc man dama jàpp ni. dafa waroon dimbali Sénégal libérer Macky Sall. Macky Sall prison la nekk il faut ñu libérer Macky Sall mu bàyyi ñoog suñu réew parce que réew maa ngi ba tey. Mm-hmm. attention ah. te mi ngi def troisième mandat. te warul tàkk. non réew mi warul ci troisième mandat mi yow yaa ngi yow yaa ngi ñëw mandat jàmbur nga ci àbb ñaari weer loolu mooy lan loolu mooy démocratie. le

ñëpp am nañ amuñu problème dialogue ñu ne réeroo ci ay xalaat réeroo ci ay doxal ñoy dialogue mhm. mais keroog la fa xew loolu du dialogue loolu tour de famille la tok waxtaan gaay di ko tag fi loolu rek mo fa xew mais dama ni man li wax moy il faut Sonko talal loxo Macky Sall defu ko pour Macky Sall na dépasser nañ dépasser nañ dépasser ñu xol Sénégal xol Sénégal dans 50 ans avenir mu réew mi ñu waxtaan il faut ñu waxtaanee réew mi yooyu bu ñu ko waxtaanewul ci fi mu jëm musiba la. Mhm. grand ma dama lay wax lu ma gëm laa wax de man nek moo fi xam nga gars dañu ragal ay for populisme yi di wax pour diw il faut ñu waxtana ak Macky Sall tàllal ko loxo dimbali ko. utal ko porte de sortie non may ko porte de sortie grand nañ waxante deug quoi boobu léegi Sonko nag yow Macky Sall baye pouvoir bi yeb dem tok buntu kàddu nañ pour waxtana Sonko diko saraxu mais Sonko loolu bu ci gisee bakkanam mais kon yalla da koy méré lii du fi nit yalla la. Hmm. donc mom na delloo yëfi yalla yalla bu nga joxee da nga koy delloo man de sama cadre loolu la. na Pastef nañu muñ lu metti kuy xeexal sa da lay dal révolution mënul am te amul ay dóor amul torture amul dee am na dëkk yu gënoon metti le lii foog mu am dëgg la yàggaguñ fu ñuy fu ñuy àtte wala fu ñu naan diw moo def diw mais fi ñu toll nii ci jamonoy waxtaan lañ toll ku leen ko waxul da leen ni ay non ki ñu wax ak moom du wax ak moom day yàqu dëkk bi day yàqu rek ñun ñëpp ñooy perte ñun Sénégal rek lañ am Macky Sall xam ngeen ne moos amnistie bi bakkanam la ciy sauvé ak ñi nga xam ñoo ko topp di def di n'importe quoi loolu la bëgg nañ ko tàllal loxo mu libéré suñu dëkk ci jàmm ñu teg Sénégal ci yoon ma tegaat institution yi seen place moom ñu bàyyi ko mu dem ñu lijjanti Sénégal ñu lijjanti institution yi lijjanti Sénégal jàpp date yoo xam ne même si biir weeru koor mën nañ ci am date élection yu hmm. baax grand hmm. dañu wante dëgg mais voté weeru koor ñu moo gën a noppale grand dimanche weeru koor bu ñu ubbee xë bu ñu xëddee rek boo xëddee rek rek loolu laa la wax 16 heures nga pare 16 heures bureau non bu ndox yu jot nga jàpp résultat yi <laughs> ak a neex ak a neex résultat ba xëdd waaw ngay dégg résultat et puis doo dem añi yow añ bi nga doon mobiliser pour les représentants des bureaux de vote abatul mais kon mais grand lan moo gën a neex euh, euh, voté weeru koor. Ah, na nekk. lan a neex voté weeru koor. dafa neex bu ñu yóbbee mais xanaa mais ñi dem Màkka duñ voté. waaw sa à dire chaque mois boo topp am na événement boo toppee lii dañ naan après lii mooy ñëw lii mooy ñëw gàmm mooy ñëw topp màggal Sénégal chaque deux mois day am luy xew. donc man je pense que ci mois de mars bi nii si weeru koor bi ñu dugg mois de mars bi ñuy dugg nii war na mën a une une date xam nga boo xam. Mhm. ñu fexee Vous ji léegi fini ne même beaucoup les campagne bi ak plateforme yi léegi technologie. jaratul jaratul sax campagne bi merci parce que fini les nii ñor ñor na ba pare te ñu respecté décision conseil constitutionnel bi grand. c'est très important mais warna warna war nous génn ñu décision parce que c'est nañ conseil constitutionnel. de nous létt bas ñu firiñu. parce que nag pour la première fois nañ jël une responsabilité pour sauver le pays. parce que nous, xam nga nous ils ont. dañu wax carrément ñom ñoom dañoo dañoo kase euh, décret. de loi bi loi bi gaay gën a. mais léegi léegi man limay wax moy il faut parce que instant il conseil constitutionnel rek moo fi des grand. Mhm. parce que bu nous retracer histoire amul ben yoon wax ma rek depuis que Sénégal wala partout dans le monde. Mhm. amul ben élection présidentielle bo xam gars yi contesté wuñu wala ŋaañuñu conseil constitutionnel. amul bi ray met maître Babacar Seye lan la woon maître doon président conseil constitutionnel. Mm, vice président wa après jël relève jëloon quoi. moo jëloon relais bi gars yi bi démissionné. Mm, euh, Kéba Mbaye. ana met ko lu ko dal moom met Bawo Kassé. dañ ko assassiné. biñ ko assassiné dafa tere procé processus électoral bi. Ah, yaa déedéet. boobu lu gën a garaaw président conseil constitutionnel bu ñu rey. waaw Youssou Ndiaye moo génne résultat yi. waaw léegi bu ñu jógee si loolu grand Fodé euh, euh, euh, Abdoulaye Wade. Mhm. bi muy déposé trop ma candidature am ba gars yi validé ko troisième mandat bi. foofu kii nu mu tudd sax Mamadou Diop Mamadou Diop camion police bi bi ñu koy fël maa ngi taxaw. waaw dal si kawam est ce que processus dafa taxawoon. déedéet est ce que tere na Abdoulaye Wade nekk candidat. Mm, nekk na candidat Fodé Ndiaye deewul. wala ñooñu du ñu ay doomu Sénégal wala daa am doomu Sénégal bu gën Sénégal policier dee ci Euh, peuple dee si mais est-ce que terewul tax na processus bi taxaw. déedéet waaw léegi kon ñu ne ki nga xam ne mooy Karim Wade nga xamante ni bi muy dañ ko tëj fii jiñ ko lu nekk ñu jàpp ko indi ko dóor ko ci dëkk dóor ko ci kaso bi mu nekk fi bi muy génnaat kaso bi gars yi nekk di ko xeexal nañ ko bàyyi bi muy génn guddi la génn bi mu génnee dafa jël dem kër Madické Niang jël jet jël Qataram jël jël euh, jet privé dem Qatar keroog lañ ko gëj a dégg kenn xamul nan la demee nan la ñëwee fan la toog nan la nekkee.

parce que Abdoulaye Wade. d'ailleurs ñom li ñu wax sax de dafa doy war parce que man nga jign ay muskala fi nek conseil constitutionnel. corruption ba pare nga am fi taxaw ci dialogue bi ne non dañu fal il fallait que ñu inventer ben prétexte manam nga sosol. c'est grave nga sosol ah. la ñom loolu lañ wax ñu fal arrêter ben prétexte pour couper processus électoral bi ndax mënuñu toog du ñu am candidat 2019 mille du ñu am candidat 2024 mais xam nga PDS. PDS deewoon na ba pare PDS na ba pare Sonko moo leen ressuscité Pastef a leen ressuscité mooy lu ma la ci ay ñoom Mame Diarra Fam ak ñoo ca topp ak ñooñu ñoom sagaru député bi ñu nekk nii sax ci parlement bi sax Pastef moo leen ko may donc kon ñoom ñoom bu ñu goree war nañu xam ne waruñu yàq Sénégal peuple Sénégal bi dañoo dépassé nañ leen ñoom élection euh, locale yi passé est-ce que xam nga loolu PDS hmm. kenn amuñu dara ci bureau de yi dara

bu ñu waxee rek muy të tëñëx tëñëx di mbëkk miir yi yàlla ak Sonko ko def meeru Dakar Sonko bu àndoon ak yaawu jaaw wala mbay peex mbay peex nekk meeru Dakar. Mm-hmm. loolu yàlla moo ko def comme ci àndal nga campagne ak yow àdduna yëpp génn ànd ak yow. parce que yàlla moo ko def da gis sax ne euh, durant toute la campagne des local <laughs> 3 jours la def Ziguinchor. 3 <laughs> jours la def Ziguinchor gagné 22 deux communes sur les 30 li ci dess yëpp Dakar ak yenen gox yi la pour ñooñu gagné. mais grand man wax naa ko. looloo dëgg wax maa ko doon wax wax man waxoon naa ko Walfadjri ne moom risque yi muy jël ni waru ko jël di campagnal ni tay ñii bu togué buñ togué ci maire yi xamul nu ñuy toogee ci maire yi waru jël risque bobu parce que politique bi mo tollu fo xamante léegi amatul naxanté ken mënatul nax peuple sénégalais bi. gars ils n'ont même pas le temps de rester si si fal ñu nekk premier ministre wu Guédiawaye taloo ko yaa ngi dem ci télé di wax Ahmed Aïdara hmm sax matinal dem tok ci télé télé mais maire dafa doy tu dafa doy que barke mm-hmm. dafa dafa doy mm-hmm. dafa il faut wax Il que maire pire mais chaque jour ngi bi di wax c'est que xam peut-être que au moins ce askan askan la que dem toko, nga xel am que tu budget de je me pose la question je me pose la question Ahmed Khalifa Ahmed euh, Ahmed télé quoi di di di des job le je me pose chaque fois la question ça me fait mal ça me fait très très mal ça me fait mal te es un ko de campagne. pas de responsabilité. Hmm.